bi mi ngi am foofu avant premier bi avant premier bi avant premier combat yi. yow garaawut ñun xam nañ lépp ñun xam nañ lépp du leer laa lay wax. waaw ah, tey la tey de. tey lu waay doon yaakaar lamb. Ah, waaw man dëkk ma ko rek waaw dafa naag dëkk ma ko moom moo dëkk say buntu kër. korma ci kanam papaam ak mami. Ah. ma ne ko day day yombat ko mariage bi dina may yàq. waaw su ma ko daanoon làmb ji day fomm. te yow da nga jàpp ne da koy daan ni yow man certitude bi ngay waxee daf ma nekk yow. confiant. kii bu woon ak carrière parce que damaa xam ne émission dañ koy la nar a la nar non gars bu leen ko mayee fii nag bu leen ko mayee fii mais xaaral rek. affaire wax tàppale rek xaaral leen rek. sa waay yaa ngi ñaan bërikat yaa ngi bëre waykat yaa ngi way seetaankat yaa ngi seetaan <laughs> ngi ngi ngi gaay yi ñoo ngi itu, bi pato mo ngi leetoo nank rek big nank rek big nank rek seetaan ko rek nank rek ah ñaari mbeuri seug nañu nañu boy nank rek boy nank rek <laughs> <laughs> ba nang ba nang rek ah nañu oho roofoo nañu roofoo nañu roofoo nañu oh saa añ na saa añ na saa yóbbu na ko oh non non non deuxième round ci bëre gars yi ngi Okay. no, no, no, no, no, no. Kaya daan ko daan liggéey ak kii xaar xaar combat clarification bi xool combat clarification xool combat clarification bi oh oh oh oh oh oh oh bi gis naa ne gis naa ne boo def ay mouvement di nga ko daan quoi bëreel am saa mën naa la wax nga def nang di xaar mais bu xaar bu xaar bëreel bu xaar bëreel bëreel bëreel ay mouvement rek yëngatul yëngatul. boo bëggee may la war a doom soo bëggee may la ñaar tànk loo bëgg may la ko. yëngatu ñaar tànk noo koy maye. booy may mu pàcc. léegi léegi nga takk ay bëreel bëreel bëreel bëreel bi. mais bu code bi sonné dee ko wàññi. bi bëreel bëreel bëreel mu taxaw. mu taxaw bëreel. mu taxaw bëreel. di taxaw de Betul ini, mana saya ini pun, betul ini. Berkelah, berkelah ini. wala bu la ëñee rek xasanal bu la बोलो याद आ रहे हो हम्म, हम्म।

Dan, will you see money? Okay. Yeah, he was Monday. Pas pas wieder Mutter am Ding. التصوير دهم يدعم اسيرو اسيرو اسيرو انا سيد انا سيد